am ami internautes yu réew mi TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax nag dal leen ak jàmm lii nag di ab xibaar bu ñu dàpp laale nag ak mbiri ki nga xamante ni jamono jile mooy njiitu réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jile nag a photom la ñu gis mu daal di fuité ci biir réseaux sociaux yi mu nekk nag ab photo bu xamante ni ñu ngi ko amale woon ca Cap Manuel ca kaso boobee gannaaw ba ñu ko fa tegee loxo mu def fa nag ay weer moom Bassirou Diomaye Faye ca photo boobee ñu ngi ko ciy gis mu ànd ci ak ki nga xamante ne moom mooy professeur Cheikh Oumar Diagne jamono jile nag mu nekk ministre ànd ci ak ki nga xamante ne itam moom mooy ab naataangoom di kii di Babacar Ndiaye nekk koo xamante ne nag yàgg na ko soutenir bi le cliché nag ñu daal di koy dévoiler fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu nekk atum 2024 nag doy waar lool ndaxte nag melokaan bi mu toogee ca photo ba mu nekk nag lu simple lool mu ànd ci ak Cheikh ki nga xamante ne itam moom lañ leen a tuddal léegi di kii di Babacar na nag bu boo xamante ne daal dinay génn génn di fàttali nag mbir yi ki nga xamante ne moom mooy président ba Bassirou Diomaye Faye dafa doy waar lool ndaxte nag bis bi ñu koy nag teggi loxo xalaatul woon benn yoon ne fukki fan bu ci toppee rek dina nekk premieru président bu Sénégal loole nag amoon ci élection présidentielle yu ñu génn 25 mars lañu nag fësal yooyu résultat bés boobee nag la doon féetee li nga xamante ne moom mooy ñeent fukki ak ñeent bés boobee la jël li nga xamante ne moom mooy réewum Sénégal fas koo jiite moom président Bassirou Diomaye Faye jaar-jaaram ci wàllum politique fii ci duwaanu Sénégal kenn dootu ko natable liggéey bu solo bi mu doon def fego woon ca ak ki nga xamante ne moom mooy leader bu Pastef di Ousmane Sonko photo boobee nag jamono jiile ñu ngi koy daal di wasaare ci biir réseaux sociaux yi mu nekk nag photo bii ngeen di janool ci bile image. da ngeen def mbokk yi ñu leen di wax nag wéy leen di abonné ci page bi nga xamante ne moom mooy Rewmi TV ngeen bës. cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo boo xamante ne Rewmi TV dugal na ko jàngeen jëf